Samagal ko mbokk internet yi dem nañ keroog seeti euh, Mortalla di surtout capital papaam mi ngi fii Chérif fii ci leen leen ak quelques kilomètres de l'aéroport de Diass tey nag euh, moom lañ seet si ndax euh, dégg ngeen ni transfert bi defoon nañ ko mu ñëw fii di fi liggéey tey nag bergerie Teranga Ladoum lañu war a ñëw xool tey nan la fi Chérif toogee ak fan la jëm ak fan la toll ci âge ak maturation et tout ak lan la fi war a def topp leen ñu dem Teranga Ladoum xool liggéey bi nu fi demee mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baalu wax ni allah comme niñ ko waxee woon chef premier bi waxoon na leen di tey capital dañ ko topp euh, ci émission bi ñu jóge muy liggéey boo xam ne euh, ça date depuis macha allah presque léegi mu am trois ans ñu euh, tàmbale woon ko fii Bergerie Yaay Soxna Diop Malicounda Euh, ci Mortalla mi nga xam ne moo nekkoon capitale moo dem Dakar tey Dakar nekk fa capitale euh, bàyyi fi nag njaboot goo xam ni ñu ngi koy wuutu waaye nag war a euh, relever défi bi parce que tey capitale fi mu nekkoon tey ay doomam ay sëtam war nañ ko ñëw jéggi ci lañ nekk ci liggéey boobu lañ nekk xool fan lañ jëm ak siit ndax ba nu jógee ci capitale dafa bàyyi doom fële Mbour boobu nag lañ seet tey fii ci Diass kilifa gi dina léegi tey exactement fii mooy fan ci. Euh, Sénégal wala ci réew mi tax waaye nag euh, ba ñu jógee ci euh, kër fële mbuur ci ki nga xam ne mooy Mortalla di sëtu capital di doomu shérif bi nga xam ne moom la ñu seeti gis liggéey bi fi fa mu toll tey si ndax shérif macha allah defoon nañ transfert fan yi ci ginnaaw mu ñëw fii ci Dia kilifa gi maa ngi lay fay Cissé Dia di nuyu ñëpp képp ku ñu seetaan. Hmm. di nuyu sama mbokk yëpp ñu toog nii. Hmm. commencé si suñu kilifa bi Paa Sène jàll ci li nga xam naa mooy l'expert maam maam Cheikh Gueye euh, Chérif Chérif Sané ak Ngañ ñëpp samay waaye lañ sama jàpp si liggéey bi lañ nekk tamit macha allah voilà donc euh, fi mooy euh, dëkk bi précisément mooy leen nekkee à quelques kilomètres de l'aéroport de Diass uh-huh. donc fi laa ñëw basé wu fii pour def sama élevage macha allah loolu mooy lépp commencement bi d'accord leen nga basé pour def sa élevage nga wax de mm-hmm. donc élevage moo la fi indi élevage moom indi fii leen waaw. ah bon élevage mhm. euh, lan moo la léegi moom ak euh, ban année nga ñëw leen. bon bu fekkee fii bergerie bi fii ñu ngi ñu ko defar depuis deux mille vingt donc mais bu dee si kii bi élevage laadum bi bi ñu commencé dugal les produits laadum bi waral te a te yu mel nii mhm. donc c' est à peu près fin deux mille vingt et un bi. Mhm. donc ci lañ commencé léegi exactement si si produit laadum bi mais bu dee élevage euh, xar rek yàggoon nañ si trop xam naa yàggoon parce que lu koy firnde ba xoole par exemple sama bant ma yàlla may yëpp xar yi ngeen sama sama sama sama jëf la ah donc élevage bu dee élevage xar hmm. yàgg li ko indi mooy bi ñu nekkee xale yi ñu mu yoroon fa mbaar donc mbaar moom ñun jeunes yi fa newoon ñoo ko doon toppatoo hmm. donc ni ma woon rek donc bi neexoon na trop sàng beeg ñu si gën naq leen donc moo si naq muy dem gubi gubi bi temps hmm. ah, boobu moom ku ne naan ayoo ma sa morom moo ayee c'était facile <laughs> loolu moom lii ak ak xar léegi bu ñu xar bu am dayo bu mag li ma bëggee xar boobu mooy benn paa bu nekkoon sera bu ñu woowee paa Mbay Njaay mhm. eh, ñu nekk sera yi dañ ko xam tuuti te sama pap doon ko jëndee ay xaru tabaski mais paa doon jox ay xar yu jéggi dayo am mensuration si jamono jooju noonu mhm. donc foofu laa amee amuru xar bu mag ma jóge si nekk si azawat yeeg euh, mélange beeg yooyu ak yi nga ma daal saa comme Belgique bi taxaw li gën nga dugal euh, laadum def naa moo moo moo toll nii moo xew daal mooy dox élevage. ok donc laa commencé si élevage laadum. ok kon euh, loolu yëpp yaa ko doon defee point e. non non point e la boobu a xale la wala après jóge donc euh, mais. avant leen après point e wala. non non point la xale la. temps xale la après nga nekk fan. ak ak càmm ma dëkk rek ma. fa ay xar quoi ay moo yoo xam ne fu ma dëkk mu ma xar ay temps dénkaane woon naa ko Seras ay temps oh, ko xar. mais bi ma fa dénkaane xar yi xam nga séraas nu mel. waaw pour yàq xar dafay difficile. mais foofu laa comprendre ne que xar dafa soxla. Euh, hygiène ak non seulement xont bi. Mm-hmm. mais fi muy fi dëkkuwaay bi. waaw daf am solo. Mm-hmm. parce que bi ma jëlee xar yi foofu indi leen mën naa ne même xont bi lañ doon jox mais en un mois dama gis différence. benn si ñoom. donc ma xam ne kon lu am solo la. donc nañ nañ suurloo bu ne environnement xar bi kese. d' accord ça veut xar yooyu euh, ci jamono jooju yow xar yooyu nga daan yor. Mhm. daan nekk ay croisement wala da nga mhm. daan yar ay xar yu pour jaay ko tabaski. Mhm. wala da nga daan ut ay di croiser. nu mu demee noonu amoon ay croisement te même boo xoolee xar yi tuuti boobu ba léegi am na yu fi nekk. yoo xam ne ñu ngi leen nekk fii à côté donc am na yu fi donc tabaski mu ci la génne. donc comme tout Sénégalais donc tabaski jotee am na yu yëpp ci lañ daan génne aussi. parce que boo bëggee xaar ba tabaski nga bëgg ku ne nga dem jënd yóbbul ko day day xaw a mhm. donc comme mënoon naa la yaral sa bopp ma doon téye donc a bi day femelle ma doon croisé jiw bi laay xayma daan mën a génne a virage yëpp. allah loolu moom ça veut dire passion bi yàgg na ci moom a parce que euh, loolu bëgg càmm la quoi. Mhm. mais est avant euh, daan nga ci rencontré ay difficulté ci càmm bi. bon difficulté bi doo ko yëg trop. Hmm. wala li ma la bu fekkee yaa ngi yor xaalis ko gis muy développé. Hmm. mënoo mënoo yëg difficulté. parce que loolu loolu loolu mooy loolu mooy élevage. Hmm. di am xaalis di ko moom di gis muy développé. waaw loolu moo dèjà loolu rek. Euh, plaisir la plaisir la. donc tey li la wane passion la tey bu mu jëlee exemple ci euh, xar mi ni Chérif bi ma ko jëlee. indi ma ko directement ci bergerie bi dama ko yëg fa ma dëkk.

dëggante boobu ba deux mille vingt bi euh, nga commencé nag soit laadum bi euh, bala na ko euh, conseiller mm. après nan nga def da nga dem subitement dugg ci wala da nga da nga ko étudier a pare xam nga léegi loolu avant avant amoon naa si notion parce que même bu dee dugg ma si woon doon naa visite quelques bergeries mm-hmm. xool seen ay produits donc xool par rapport li ma doon liggéey ak yooyu mm-hmm. mais comme léegi ak ak seen participation yéen mm-hmm. visite dafa yomb da ngay toog sa salon di visite deux recrutement bi amoon nga ci notion. si amoon naa ci rek. Mhm. ak yéen seen seen seen chaîne télévision yi. Mhm. léegi da ngay toog sa kër euh, nga mën gis yenn image yi gis yenn bergerie yi donc léegi boo seetaanee gis le produit bu la xam ne par exemple gis nga ne lii nga ko war a dem seeti. Mhm. nga jóg dem. mais aussi nga déglu si ñu waaj di communiquer. waaw nga xam ne kii peut être kii sa xel may na la def. ok donc dem donc j'ai visité pas mal de bergerie. donc échange ak ñoom. comment a été le recrutement ak transition bi. Mhm. diggante li fi nekkoon. ak li nga indi nan nga def da nga bàyyi lii gérer ko ëttu yi laadum wala da génne wàññi fi. non pratiquement yëpp non moom laa la boo xoolee ba léegi à côté ñu ngi fi. waaw ah. pratiquement fa ñëpp am am na déjà yu génn c'est normal donc affaire dina changé. Mhm. mais ñi fi ne ñëpp pratiquement fii ngi fi toujours mais bu ma nee côté recrutement bi euh, man je du ma du ma du ma fekk bu ma gisul lu ma neex mais dama daan gis moom bergerie bi na ma trop ñu toog bu dee recrutement bu ñu par exemple bu ñu jàllee ci cadre bi dama ñëwoon foofu ci waxtaan woo bi téléphone déjà. waxtaan waxtaan bi. ñu la xamale pas seen. seen seen émission yi émission yi d'accord émission laa gis numéro moo ko naturellement. waaw ne ko bëggoon naa la seet si donc mu ne ma am benn problème bu doon def joxe ma woo ko mu ne maa ngi ci kër gi ñu ànd waxtaan. moo mm-hmm. xoolee waxtaan moo fekkoon fa shérif euh, ak euh, moo ki tudd moo ak seexam. waaw waaw. donc ma ma defoon genre focus ci ci moo taal. Ah. parce que boo gis naa shérif mais je me disais que lii nekk na produit boo xam ne tey euh, produit bu ñu liggéey fini la daal. waaw produit fini la quoi produit ma ne ma naa moo ko moo bi dina ma dina ma dóor ma. daal ah. <laughs> ma ne bon bii xaaral ma. ma laaj doon bi bi. mais bi ma fay dem ma tàmm su may génn lépp lu ma dugg lépp dama ànd ak sama njaboot. Hmm. ma ànd soxna si ak euh, xale yi ñu def visite euh, soxna si ne ma man daal saay maal bi ma soxla duñ ko fi bàyyi. Hmm. macha allah moo passé na moom pratiquement pare woon pour génnee ko mais xam naa bi ñu ñëwee yëg-yëg bi mu am. waaw ak li soxna si joxañ waxtaanee ak moom moom mu xam ne kii peut être ko boo koy joxe aussi ko jox n'importe qui. waaw parce que da koy jox koo xam ne am mu nga joxee mm-hmm. produit bi dem mm-hmm. mel neneen ñu ne kon kii dafa xool li nga xam ne baaxul moo tax mu jëlee ko alors mm-hmm. ne moo tax mu mel neneen mais vraiment mu mu yombaloon ñu affaire bi donc waxtaan général même fi mu toll nekkatu sax entre éleveur mais jàppee naa la comme sama doom sa comme sama goro soxna si mooy sama doom waxtaan waxtaan bu rafet donc loolu mu indi tey euh, recrutement Chérif ok document shérif ñëw. Mm-hmm. léegi nag mu nekk loo xam ni beneen liggéey la ko mu nekk liggéey laa doon. Mm-hmm. shérif bu ñëwee dafa war am ay famille lu mu liggéeyee. Mm-hmm. lan nga def c'était famille ñoo jiitu shérif wala da dem indi shérif ba pare. am na lu mu am na am na am na ñu ko fi jiitu parce que avant ma doon dem ci ci paa bi jotoon naa dem visite ci quelques DG euh, yu nekk Dakar bu ci mel ni euh, sëñ Abdou euh, Fata Diop. donc bu ma demee parce que moom njëkkoon naa def visite moom yàgg na dans les années deux mille dix neuf toog waxtaan échange et tout. donc ma demaatee seetu nekk donc mu jox ma benn benn doomu benn doomu Dargaas. moom mi ngi woon ngi woon fii si bergerie bi déjà. donc seet naa tam sama benn dëkkandoo ku si mel ni Modou Dramé aussi. on a aussi waxtaan. am na suy ma joxoon. mais après bi Chérif ñëwee tamit bi ñu xoolaat ni Chérif mu taxawee ne yor na aussi. wutal ko yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen jabar comme ni ngeen di waxee. ok a fait aussi quelques recrutements ci ci sens kon après war nga mën a présenter quelque ci yooyu nga xam ne ak a si yooyu yëpp. voilà léegi nag de mm-hmm, mm-hmm. ban étape nga toll ak liggéey bi ak lan ak lan nga yan euh, ci càmm. Mm-hmm. lan lan nga defagum est-ce que tu dem nga ci foire. nga génn dem foire wala. est-ce que fa la liggéey non je pense aussi boo xoolee tey jii li may jël si def je pense que tey bu doon dañuy ñëwoon rek pour def buzz wala bu fi sàmm pour euh, parce que euh, problème euh, comme ni de gars yi def financier. waaw ah. non c'est pas ça dama fi doon dama fi dugg pour plaisir. par exemple bu mu ñëwee sama plaisir gis xaar yoo xam ne tey jii da da ngay kontaan. la preuve bi ma jëlee si def defuma sax transfert. ok ñëw rek pas bu ñu def transfert pour le moment daal je te def naa actuellement li ñu defee jotaay aussi neex na parce que surtout si kan surtout si moom parce que lii ndamam la. Mm-hmm. parce que lii dafa mën dafa war a mën aussi yéen yu bëri xam nañ li ma la jox. waaw ah. loolu woon na ko. Mm-hmm. jox na la produit. def mm-hmm. naa lii tey képp kuy def képp képp kuy éleveur je pense que mënoo am ndam bu ëpp lii. dëgg la donc c'est quelque chose de très important mu mu pour man lu quelque à saluer. vraiment à saluer. macha allah parce que lii moo élevage. macha allah ci transfert boobu wax moom ni mu nekkee sama nit ak lép loo xam da koy def dafa ma koy wax jour boobu maa ngi Gambie. ci hmm. ma appelé jotoo ma. Hmm. man la mënoo ma jot direct parce que dama nekk Gambie après nga ma koy doog a WhatsApp. au moins sax ma teewee ko quoi. Hmm. Euh, euh, loo xam ni macha allah ñun ñëpp rafetlu ko. léegi euh, actuellement kon jotagoo génn tu es juste ba ba léegi da nga ñëw. tu es là liggéey comme comme comme langage éleveur maa ngi ëpp. yaa ngi ëpp di di liggéey fii mooy bergerie Teranga Ladoum. Teranga Ladoum ok ah Teranga Ladoum boo kon na ko dàqee comme Sénégal Teranga Sénégal bi quoi. waaw dégg nga jox ko Teranga Ladoum léegi si élevage sax. ma mën la rek. Ah, mhm. eh, moom neex na léegi est-ce que Chérif ñaata moo la fi def kañ la fi ñëw. léegi bi nga ko jëlee kër paa bi bi ñuy def jour euh, transfert bi ak moom si je me trompe pas c'était le début novembre. Mhm. bi ma ko jëlee ma yóbbu ko fële cité Djily fi mu dëkk. Mhm. fi la célébré ba le 23 décembre. laa ko doog ba mu demee foofu jarul tëb jarul def dara. non bi mu ñëw euh, am na am na fen bu mu àndaloon. waaw ah. ñu ñoo newoon kër ga. waaw donc loolu ma def ko mooy par exemple nga jënd jël bu xam ne tey jii dafa yàgg benn bërëb. Mhm. donc su ñëwee ak lu mu amee fu bi ci environnement bi may ko daal boobu. ok te tamit ko mais yëg bi amoon ci moom il faut que ma téeloo ko sama bopp. waaw li ma si yëg yëpp mën ko def ci moom. loolu ñu def ko ci yàlla jàppale ñu ci côté boobu aussi. donc hmm. quoi qu'on puisse dire aussi xar euh, suñu borom mooy bàcceel. Hmm. te mu nga jël le meilleur mouton. mais ñëpp xam nañu ne mouton dafa dafa li ko yàq dafa yomb. Hmm. xar li ko yàq dafa yomb. c'est vrai des fois moom lu ndaw amoo seetlu moom mu mu jur leneen daal. donc il faut la ñu ko ñu comme xam ne li ñu def ci moom aussi. ñu koy jar aussi ñu ñu def suñu kenn kàttan ba lépp lu ñu lu ñu séntu ñu ñu gis ko ci daal. ok moom. ba gis na fi mu toll nag euh, mhm. ko fi. di ko suivre aussi waaw. ok léegi euh, euh, fu mu toll est-ce que wàccee wàccee fi wala mais comme bii mooy première émission bi. production bi dañ koy aju gum. dañ koy aju ba ci kanam. waaw te je pense que fi mu toll nii production bi sax doo doo doo saxe. Mhm. parce que paa bi génne na loo xam ne fi mu toll nii moom. Eh. defe naa ñëpp a ngi koy coow. Mhm. ñu koy rafetlu bu weer a weer a wér naa tey jii. pour seetaan émission boobu. doo laaj li def. naqaru production la tey boo gisee tey par exemple Chérif moom ci ci ci ci mbindam ci dayoo macha allah mhm. doon je ne pense nga am looy looy mën a gis daal parce que euh, nekk na xaru xam si suñu borom ba nañu ko andi nañu andi Chérif waaw tey léegi euh, Trangalaadum gënagul faax non non non dafa gën a est ce que yaa ngi préparé pour génn fa waaw waxal euh, waajal Ladoumène en tout cas Ladoumène fa la pa passeen dëkk xaw ma la ba xam ne dañ koy gunge si wala waa loolu moom ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan waxtaan donc vraiment loolu loolu da gunge fii Chérif day jóg gunge fii. waaw euh, loolu doom ji. waaw da nga ma ko waaw dama bëgg a xam ba xam Chérif day oh, gunge bi waaw à part seen loolu nag acca acca Lamine loolu ci xalaat waaw ñu ciy waxtaan tamit foo foo ma souligner leen hmm. c'est que des fois aussi sama liggéey dama tënk tënk boo xam ne. Hmm. pour ma gaaw di joxe date waaw parce que aw ma clans yoo xam ne suba rek ñu woo ma ci liggéey boo xam tey donc day day du ma am du ma am sama jot du ma may loolu. waaw donc moo sama calendrier professionnel. ko. waaw ah. tam bëgg naa ko. waaw mu ko mën a respecté. dama jëli Chérif boo jëlee ma ngi ñëwee bi Chérif mi ngi noonu di génn ci boppam. Pasen yow tamit dama taxaw yow mi yor t-shirt. Pasen gis nga ko mi ngi nii tey nga teranga laa dum ba koy joxe mi ngi ci gis nga ko ah tey noo ko fekke non dama ne woon capital. Cherif mm-hmm. capital plus la. Mm-hmm. gars yi di ci am luñ ci xaw a am ñu nangu am ñu doon doon diingat. Mm-hmm. waaye defe naa ne tey wane na ko. dama ne Cherif lépp lu nit bugg ci xar. Mm. lépp lu nit bugg ci maal. wane na ko macha allah. macha allah wane na ko ci boppam wane na ko ci production te ku ko topp di nga gis ne lima la wax ni dara du ko dindi macha allah borom nak da nité suma démé ba mu jaral ma may jox nit ba paré wolbeuti ko parce que man buma ma jox nit rek dama koy wan ginnaaw mhm. man bu la jégué rek yow ya ma xëccat pour ma excité yow ma bu la xasee ba jox ba pare yéene bima ci am ak ñaanal bima la ci ñaanal lool lay bëgg mu dal ci kaw rek point final okay

ja hmm. ya, maa ngi lay ziar bu baax. Hmm. di rafetlu rek encore une fois rek vraiment say say say say intervention. Hmm. ya ngi dundal élevage di ci bay sawar di la ñaanal yalla yalla suñu borom doli la sutura. Ah. yalla suñu borom doli la sagal. di nuyu suñu goor gi tok muy passer di ko ñaanal yalla yalla suñu borom doli ko wër kattanal ko sutural ko. ci daraje yeneen di nuyu eh, doyen bi wax dëgg yalla eh, muy Kébé. Mhm. doon nit ku baax mhm. nit ko xamantene ne ku ñeme partage la nit la ko xamantene vraiment ku ñeme gëstu la parce que genre yu mel nii dañ leen soxla ci milieu élevage bi laa dund bi parce que cheptel bi nga xamantene wax dëgg yalla yalla sutural lako sénégalais yi ñu melni ni Kébé ñu melni ni Kébé dañ leen ci soxla parce que ñew nañ aussi andi seen i xalaat andi seen touche ci élevage bi ba paré aussi euh marqué seen empreinte macha allah mu bolé ko tay ji Euh, discret boo xamante ne mm-hmm. beneen dimension la boole ko dal ak teey ba aussi wax dëgg yàlla ku muy diisool di waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu càmm da ngay mm-hmm. sawar pour wax ak moom mm-hmm. loolu vraiment moo ko incarné ci élevage bi mu doon koo xamante ne vraiment référence la parce que bergerie teraanga tera teraanga laadum bi ku fi ñëw da ngay xam ne fii bergerie la boo xamante ne boroom wax dëgg yàlla teg na ko fi mu ko war a teg parce que ni mu présenté ak wax deug yàlla ni xar yi box yi duñu melé da ngay xamné fi ku fi ñëw da ngay xamné jox na élevage haqam vraiment wax deug yàlla mu yo jële won benn mal bu doy war mu présenter côté du dom du di shérif di doomu capital don mal bo xamantene vraiment phénomène la ok phénomène la ci jamonom phénomène la ci ajam parce que xar mën nga wone say disposition mais sa disposition yi ngay wone boo ko wanee ba pare am leneen loo feeñal di màgg di feeñal beneen critère wax dëgg yàlla dangay xam ne li mu denc bari na parce que góor gi moo ko joxoon te bi mu koy jëlee kër gëm mi ngi ci seize dix-sept mois mm. mais par rapport ak léegi soo ko xoolaatee dangay gis ne Chérif dafa wane beneen melokaan boo xamante ne wax dëgg yàlla mm-hmm. wane wu ko woon mm-hmm. mais en général lii dal loolu ci xar yi mooy xar yi li nga mm-hmm. xamante ne dañoo làmboor tàmboor yenn génétique yi riche mbokk waaw yooyu noonu en général uh-huh. ñooy mag di feeñal lu bari uh-huh. xam nga xar dañ ne su fekkee génétique am bari na am capital génétique ay mbokkam riche nañ uh-huh. bu lay putu juddu foofu ki fekkee juddu ba rek moo la mën a wax xar bi fu mu jëm bu la wanee li nga xamante ne fa la juddoo ba quatre mois foofu meewu ndey la quatre mois ba dix mois foofu éleveur bi la mais dix mois seize mois jëm vingt mois foofu potentiel génétique u ak baay mooy taxaw kon Chérif ah. loolu la wane tey uh-huh. maanaam ci vingt deux mois mi uh-huh. daf fay wanewaat tey ji génétique bi nga xamante ne dafa nekk ci moom hmm. parce que baayam bi ko jur muy capital hmm. xar boobu dafa indi màggal hmm. ne màggal mooy ay maamam ak ñoom Mouride Sadé mais kii dafa feeñal leneen uh-huh. maanaam dafa ñëw doon capital boo amélioré tous les critères parce que caractéristiques yi nga xamante ne présenté na ko ci âge ak melokaan bi nga xamante ne am na ko waaw nekkul melokaanu caaxaan du maal rek kese ñooy mel nii foog sa mbokk baax waaw ba pare nga am génétique bu wóor loolu moo mën a andi dii macha parce que aussi yaay ji ci boppam dafa nekkul xaru caaxaan yaay ji wax naa ko grand bi nee naa ko benn doomu mbaar mi bu góor moo jur yaayam moo jur yaayam mbaar mi doomu Assane la ak Ramsès Ramsès Cheikh Diop a ko jur nekkoon deuxième champion Saladam Cheikh Diop nekk Cheikh Diop mom lañ jël teg ci Kumba Gawlo ah. Kumba Gawlo doom ok mu daal di jur tay ji Ramses Ramses ak ñaari guuy ñoo doon Sala Saladamba ñaari guuy jël pay Ramses jël deuxième ok mu paré ñu jël ko jox ko président Fadilou bo boobu moo moomoon Assane ok Abou ñaan fa couragement Ramses daal di tirible jur ñetti doom mbar mi ci la génne boko xolé mbar mi ak yaayu Chérif ah. daanaka ben la sen maro bu xam bobu non ah, bobu ñom ci ñom la nekk légui nak ci biir lolu moy xari il faut ouverture bi am man passé dama ko yàgg di wax ma foofu balaa ñuy dem waaw passé dama ko yàgg di wax dama ne ko lila may résultat ci sa xari moy ouverture bi dañ hmm. dan tok di discuter gis nga ci digënde magal ak tey jii dafa nek giiru xar yo xamantene dañu duggon duggoon ak alu ta alu doomu ñebale ak wagan bu docteur sar. Ousmane li moko jëndoon ba paré def ouverture bergerie mak al Maktoum ci Lamine Diop jënd fa salaam jënd fa màggal te li tax bi mu jëndee salaam ak màggal ah. ñu dem nga ni waaw ouverture boobu nag moom la paaseen def kër euh, ci ci ci ci bergerie Ousmane li ah. loolu moo ko topp moo topp jeexital bii rek ok te lépp da koy teg ci logique nag léegi léegi foofu comme loo bëgg comme euh, shérif mi fi nga toll mhm. nga ni yaayam pénigré boobu laa bëgg nga tëjal ma ko waaw xar bi xam nga dañoo xool ci doomu capital yi ah. par rapport ak doomu capital yi par rapport ak shérif ni melokaan bi am ni mensuration bi dégagé woon ni ci moom uh-huh. loolu day joué ci génétique gu ndey ji mm-hmm. su nga xar bi papa ji passé na ko juddulu mais yaay ji Ndemba Fall moo ko jox te Ndemba Fall ku ko xam paa bu yàgg ci xar na yàgg mm-hmm. liggéey ci mensuration léegi nag bi ñu ko jëlee daf ko boole capital looloo waral mensuration moo tax gis nga xar soo ko yoree lu mu yéeme yéeme yéeme mm-hmm. su fekkee da nga bëgg a améliorer tey jii kuy bi foog baayam yaayam nga génn mu doon étranger ñëw boole ak li nga yor. d'accord la. forum que bi mu yoree waa kër màggal yi dafa dem def ouverture ci Murid Sadix am ndaat am tey jii nga dégg dëgg yaay Fall. léegi bi mu paree waat dafa defaat ouverture ci Ismaïla am capital léegi bi mu paree yaay Chérif daf ko génn ci Ndemba Fall la ko jëlee daa di koy dugalaat ci xaram yi moo tax à chaque fois yokkute mensuration bi day ñëw. boo gisee loolu moo topp tey ji mortale bi doomu Chérif bi nekk foofu noonu. Ah. parce que Hamza bu Bargny moo ko joxaat yaayam. paa bi à chaque fois Vous bu defee euh, recrutement Vous recruter ci bergerie bu maîtriser ay descendance vous xar bu dem rek Vous lu ko man allah le Ramsès vous, Cheikh comprendre Vous vous. a xam dégagé yenn Vous yi hmm. génétique la Vous xamante fait dafa vous, vous avez yi moo vous. à chaque fois quatre il faut vous. ouverture ouverture guddi yi ñu moo mën a yokk say mensuration ah, parce que lépp mënoo ko liggéey sa biir macha allah léegi euh, nga mayaat tuuti gars yi léegi papaam capital waaw tëjee ma ci moom moom waaw capital kan la kan seen euh, boole kan lañ boole waaw capital moom euh, xar la boo xamante ne dañoo jël doomu màggal bu jigéen mm-hmm. kër Ousmane lii la ko jëndee woon mm-hmm. mu daal di koy teg ci Murit Saadix mm-hmm. mu jur benn femelle bu ñu naan ndaat ndaat moomu moom lañ jël teg ko ci Ismaïla Ismaïla Poroxaan moo ko poroxaan moom doomu xarañ la xarañ yaayam doom bourgeois la bourgeois faya moo ko jur ak balxiis loolu mooy topp tey ji ba nga balxiis doomu lamp la bu Lamine Diop maanaam balxiis doomu lamp bu Lamine Diop Lamine Diop dafa amoon benn femelle bu doon balxiis uh-huh. doomu lamp la femelle boobu noonu moom lañ jël teg ko ci bourgeois mu jur benn mâle bu naan faya yaa ngi dégg faya moomu moom moo jur tey ji moom moo jur bourgeois bourgeois moo jur femelle femelle boobu ñu jël ko teg ko ci tamsiir tamsiir bu sàll bu yoof mu daal di jur tey jii ba ngaa dégg-dégg euh, xarañ mhm. comprendre nga ñu teg ko ci bourgeois mu jur xarañ xarañ moomu moom lañ jëlaat tegaat ko ci yaayam comprendre nga mu daal di jur maal maal boobu nag moom lañ jël jox ko benn sëtu macha allah. Mhm. comprendre nga mu daal di jur Ismaïla Ismaïla moomu moom lañ jël jox ko doomu Murid Saadix bu jigéen boo xamante ne yaay ji doomu màggal la mu daal di jur tey jii ba ngaa dégg dëgg capital moo tax capital dindiroog màggal te màggal doomu lampis la ak kodd kodd doomu góor gi la yaayam doomu sengoor la moo tax capital mel noonu léegi nag li tax kii gën a confirmer mensuration bi dafa laalaat tey jii ci waa Assane Deye ak mbaar mi looloo tax xar bi jikki a développé mensuration macha allah moo tax mu doon maal boo xamante ne vraiment euh, dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla suñu borom léegi ban femelle la may jox je sais pas ba xam bu bu génnee mam Cheikh ya ci wax wala mam Cheikh. waaw kooku moom moo jugee laadum SN moom mooy kan. waaw bobu euh lébu moko ko jur. mooy yaayam. waaw lébu pour wax ne la dum ñom seen lépp ouverture bi nga xamantene aussi tamit ñu ko doon wax sank gis na ne mu ci basé wu bi ci def te lolu en général su ko bergerie di def rek bu yagge inshallah mën nañ amolo ko suñu laadum bi parce que laadum bi. vers amélioration de la race la ñu wax mais amélioration de la race bi foog nga topp continuité bi hmm. parce que aussi euh, euh, femelle bi papaam hmm. benn doomu Ramadan xam nañ ko Ramadan mook Picasso ñoo bokk ndey ak baay hmm. doomu Calvin Kablak Saalum Saalum femelle bi nii bu ma roobee waaw moom lañ jël nag daal di jël benn doomu bâtonnier ok boo xamante ne doomu bâtonnier boobu noonu mu ngi ko am ak Bousso Bali Bousso Bali mooy yaayu préfet doomu commandant Kosso la. Hmm. moom lañ jël comprendre Omar Cissé jënd ko ci Ligue Nicolas bi mu demee daf ko teg ci bâtonnier mu jur jigéen. bu hmm. jigéen boobu mu jaay ko tafaa Diallo. bu ko jaayee Tafa Diallo ci la ko tafaa Diallo jël teg ko ci Ramadan mu jur maal Dramé jënd ko andi ko daal di koy teg. ci libu te libu doomu Maxusey la yaayu libu. Hmm. ni Saalum la doomu Saalum Saalum. ok lu da la tudd da koy meñcee moo taxoon bugguma ah, woon sori. Ah, waaw ba ndax day meñcee tur bi wala déet. ok da koy dafa doon xar boo xamante ne dafa amélioré yaay ji maanaam mu sut yaayam auteur parce que lébu xam nga maxu aussi magistrat ko jur ak première dame. première dame aussi doom booy séeréer la kon loolu ba tey day baax ci croisement bi ak tey jii ba ngaa dégg-dégg shérif. parce que Paaseen bi mu demee ci waa kër màggali liggéey ci màggal liggéey ci Murid Saadix liggéey ci Assane II liggéey ci Ramses ba daje ko ba takk ko ci shérif daf ko jël jox ko tey jii ba ngaa dégg dégg Kébé. ok yaa ngi dégg bi Kébé ñëwee defaat ouverture dem rootiwaat yeneen brebis yoo xamante ne aussi régime ne génétique boobu noonu croisement bi su ñëwee foofu danay wóor ne su juree su ci amee doom bu dee góor la day mën tey jii ba ngaa dégg dëgg baayam. macha allah ba pare aussi liggéey ci ossature. liggéey ci hauteur liggéey ci LCS liggéey ci mensuration bawut dara. te bergerie loolu la moo tax continuité boobu mu topp moo tax ouverture boobu noonu moom la def tey jii ba nga dégg-dégg ci Ramawan mu nekk femelle boo xamante ne axul élevage ñëpp ko xam. Mhm. muy présenté ay mensuration yu jéggi dayoo. parce que aussi ku ne xam na capital génétique bi nga xamante ne Ramawan Ramawan dëxëñ na ko. buñ lay limal ay pédigrés dafa régime xar ci Sénégal yëpp en bi yoo xamante ne. choix yu waar la ci wàllu génétique ak li ñu présenté. moom ñaata mois moom ak wala. normalement benn portée la wala. wala deux portées. mi ngi ci deuxième portée. instant bi euh, Chérif na ko. am nañ ci yaakaar <laughs> bu bu bi. beneen bi tamit euh, bu ñu gisaatee ñëwaat defaat tour bi gisaat nañ beneen recrutement euh, muy doomu lobo bi te lobo aussi tamit ku ne xam na ko temps yi bu ñu xoolee foire yi mujj génn ay doomam présenté wu nañ trop ñu ñi gis nañ leen. Miss Sénégal aussi bu Bakary gis nañ ko ni mu mel ci melokaan Lebo aussi di doomu Grand Rane yaayam di Aminta Mbengue Ndiaye. Mhm. te Aminta Mbengue aussi tamit wax dëgg yàlla champion Saladam la doomu Nations Unies ak Aïcha la. ok parce que aussi tamit yaayam aussi tamit laal ci vite fait jooni jooni bi te jooni jooni Ramses moo ko jur ak tey jii ba ngaa dégg-dégg booy Lebu. kon tey choix yi nga xamante ne aussi tamit defal na ko Chérif muy investissement bi ak recrutement fële bi. Mhm. lépp ko teg def ay recrutement yoo xamante ne famille yi ku leen ne jàkk da ngay xam ne xar yi ay xar yi nga xamante ne tey jii seen i descendance ak seen i mbokk ñoom ñëpp wax dëgg yàlla euh, recruter na euh, présenté nañ seen i mensuration yu wóor ba pare aussi mhm. ci recrutement yi wóor na léegi tamit balaa may joxe cadre bi aussi di di remercier bu baax sama soxna mhm. comme je comme comme je l'ai dit euh, tey jii bu duggee sama loxo mhm. daf ci lu lu bëri parce que yow wax nga sa wax sànq laadum yenn sujet yi jot ko dellu sa nga defi naan livre tout le monde sait que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bien aussi mhm. donc soo bëggee li ñëpp bëgg aussi il faut mettre donc tey te bu nekkee père de famille aussi buy dugg si yenn je pense que c'est normal aussi nga waxtaan si ñu àndal mhm. parce que c'est un investissement comme mun nañu wax ça dépend donc ku nekk ni mu ni mu gisee waaw bi mhm. donc mais maa ngi ko si sant di ko gërëm parce que vraiment ku ku la yéene am chérif moom fi mu yéen sama élevage yegg yàlla moom fi mu bëgg sama élevage yegg man yàlla naa fa la bi kasala du leneen en tout cas ah kontaan nañ parce a moom moo ko njëkk a seetaan signalé ko monsieur waaw not may ma not bu garaaw nag waaw not bu garaaw la ma may xaw ma nag jàngalekat la xaw ma not bi daal foor na Lamine kon niñ dem ci passée ñu dem ci après na ngañ na. Pathène. waaw looy tëjee xam nga xam nga kii dama bëgg a commencer rek mu mu jël sama lañ. muy soxnaam. waaw. kii. Hmm. fu bugg bëgg egg rek mën na fa egg ngir soxnaam. macha allah élevage. Hmm. moom dafa am chance su. jabar soxnaam gën koo bëgg affaire bi affaire bi macha important loolu muy wax ne bu ñemee yoon bi soxnaam la hmm. damaa gis loolu parce que keroog ba ñëwee sama kër jab soxnaam moo gën a insister ba tax ma jox ko maal bi parce que man maal bi joxee gu ma ko woon dëgg la mais soxnaam moo ma ne papa ma ne ah mu ne ma dooma bàyyi ma ñibbi mukk te yaakaar bi mu indi fii defaloo ma ko ma ne ko billaahi li nga bëgg fii di nga ko yóbbu wax ji foofu la démarré kon li mu wax nii mm. euh, euh, moo tax euh, te kóllëre bi ngay wax ñu di ko sàmm ci diggante ñi mu ko seqal mm-hmm. moo parce que keroog ba may jàkkaarloog moom moo ma ne papa ñemewoo maa bàyyi ma génn te defaloo ma. ma jaaxal ndax man ba may jógee foofu da nga ne ma. jaayul jaayul jaayul. nga jékki-jékki woo ma dafa am benn waaye bu ñëw. man de mais pas loolu da ni. dafa nee na jël na xar bi quoi. xam nga mënu mënu wala ko mais Paa Sène. Paa Sène waxoo ma woon lii. mais gis ñu bi ak dalam. waaw ak ak xam naka lay aborder sujet nan lay waxee ak nit. ba xam nga ne bu waxee man dinaa wàcc. ba pare man nit la. ànd ak soxna Seck yi doo doo ko mën a delloo. dañ koo gis waaw si c'est li gis ak mooy kontaan parce que Serif defe naa ne maa ngi ko gëjee gis ci jour bi koy defal transfert waaw wax fa dëgg yàlla mhm. mais bu ma ñëwaatee tey ba gisaat Cherif mhm. man sama xol dafa sedd mhm. parce que damay xam ne sa waay xam na gëddu li mu yor parce que nit di nga jënd xar mais da ngay sosee xam gëddu xar bi mais moom xam na li mu yor lan la man loolu laa koy njëkk a remercier mook soxnaam parce que gis nga nga jox nit lu baax tey ji passé gisuma ko mais xol bi sedd na guy parce que lii dafa neex lii ma élevage nga jox nit xar waat ko ñëw gis ni ko toppatooyee lii dafa am solo di ko ci ñaanal yàlla rek suñ borom defal ko ci lu kawe tam macha allah lim ci bëgg daal moo ko xam yàlla na ko suñ borom mottali. jaajëf waaw ndax xar la boo xam ne nii daal man gis naa ne. Hmm. élevage moom am na ci wàll. macha allah waaw parce que te it moom it gis na ne euh, lancé bi mu wax léegi ne dafa bëgg liggéey ay sérif amélioré. Hmm. loolu gis naa ne loolu gëm-gëm boobu am na ko ndax boo gisee femelle yi nga xam ne dugalal na ko ko te xam naa ne pareegul. ndax xam na li mu yor. kon mu leen lancé boobu moom mu ngi ci quoi. macha allah ñooy rek suñu borom eggali loolu. Ah, jaajëf macha allah naa grand. Hmm. yow moom ñoo naan mooy def émission bu neex. non yow sama sama ba ma nga teewoon temps yi di fa toj. amiin amiin ah, <laughs> kon yaa waaj a Ladoumé. non ñu ngi waaj bu baax Ladoumé lu fay ñëw. non waa Ladoumé Serif day ñëw. waaw mais yéen la leen indi. ñu ngi waaj waaw dugal nañ lu bees. ah jeex na maam Cheikh fi lu bees. <laughs> jeex na ziar naa la. <laughs> delloo ziar chargé de com Ladoumé yaa ngi waaj nekk liggéey bi doy waar tey noo gise liggéey bi fii ci lenn ah. ah big rek parce que fi mom suñ fi ñëwé dañuy sentir ñu sax ñun suñu kër lañ nekk moy mm-hmm. digëntem ak Paaseen ñun so gisee ñu toog fi ci digëntem ak Paaseen la jaar muy ay nit yu baax man pa bi sama paa sama kilifa la dañuy waxtaan ci lu bari Paaseen mi daf may ñaan lo xamni sax sama kuma bokal ben dret mën mm-hmm. na mako ñaan te duma ko def mais mom duma fété kilifa mm-hmm. ba pare jiital ñu nak suñu kilifa la mais en même temps day diisoog ñun té ji nga jeunesse jaxasoog jeunesse dafa am solo parce que da ngay xol mbirum yalla dama kay wax tout le temps instant bi jeune yi lepp loy def dañ leen ciy dugal moom c'est ça qu'il a compris teewul gëdd bu mu war suñu digënté dinañ ko am ma ñëw ci monsieur Kébé muy nit koo xam ni munoon na ne paaseen rek laa jëflanteen mm. kon après la reste je m'en fous mhm. te kenn du ko mere mais moom dafa jël paasen def ko kilifa jël ñu def ñu ay nawle boole ñu mën naa ne suñu digganteeg paasen sax moo ko gën a ñëw pour la may la foofu rek ma mu mm. jëndee Chérif daf ma woo ne ma ci yow laa xamee paasen man maa recruté Chérif ñu defante ñu jëlante ay link mango kon ça veut dire que nit ku am colère la am colère la mhm. fa laay ñëw mhm. parce que man mii daf may woo di diisoog man ci càmm te xam naa ne amul jot parfois mu ne ma ah loo gis lii wala boog loo xalaat lii tijjil ñu ay buntam. macha allah te mun naa ne jotam mayu ko ko de même que de même que soxnaam. Hmm. de même que soxnaam. Hmm. soxnaam di nit ku baax moom it wax dëgg yàlla euh, bàyyi ko ak li nga xam ne mooy monde élevage xam nga hmm. élevage si sa dafa fiir. waaw tey lii investissement la soxnaam munoon na lii kat nañ ko exploité ci ay batiment wala. ba pare nag ngay sentir ni ñun lu ñu wax suñuy kàddu ñoom dañ koy jël en compte hmm. c'est ça qui est important hmm. xam nga nit ki mun nga tricher wala ngay forcer hmm. ça se sent mais moom da lay leer ni moo ko soxnaam lu ñuy dund ak ñun c'est naturel dafa dëggu vraiment ma ñëwit fekk fi bergerie bi avancement nga ji Chérif melokaan bi mu mel man ba ma ko gisee man dama fier macha allah ginnaaw ba mu nekkee sama turandoo mais da nga gis effectivement dafa dox lu baree bari bari bari di wax ni aussi recrutement yi macha allah vraiment am nañ rafet njot ñu ngi koy ñaanal. mais xam nga loolu pour ñu fàtte ko ni yow lañ ko tuddee. waaw wala beneen shérif bi la. beneen shérif mais après dañ ko tuddee après dañ am da leen di jaawale rek beneen lañ ko tuddee mais boo leen shérif yëpp ko jeex na rafet na. waaw di ko ñaanal. Uh-huh. moom it nit ku baax la Kébé. macha allah di ko ñaanal sunu borom defal ko xéewal defal ko jàmm. macha waaw defal ko lii nga xam ne sumb na ko suñu borom may ko ci ndam waaw vraiment di ko ñaanal bu baax a baax. a euh, laa du met bii kañ la. waa laa du met c'est du 23 mai au 2 juin. incha allah incha allah. muy dixième salon. di ci woo éleveurs yëpp. macha allah waaw di wax ne nag man balaa maa foire. foog ah. sama shérif nag ñëw. non day ñëw non day ñëw. day ñëw dinañ ci waxtaan. <laughs> Mm-hmm. wax nañ shérif wax nañ ñaari femelles yu jóge fee. deux derniers recrutements yi maam Cheikh wax. Mm-hmm. comment ça a été nga tëj joxe numéro bi muy añel bi ak kan la kan ak kan la. doomu dara bi doomu dara daaf bi ak doomu bay ña ak kan. Oh, ñu bàyyi ba ñëwaat fekk ñun. mais ñoom ñaar ay añel lañ quoi wala. ci am nañu li fi ne am na yoo xam ne am na yeneen yoo xam ne feneen lu jóge quoi nekk am na fi ah. mais comme ni ma la wax nañ bàyyi ba kon daal tey daal dañ ñëw di xool Chérif rek di waajal laaj nañ voilà dama am benn staff bu am doole uh-huh. bu nekk Touba mun ma def émission mukk ci tudd ma leen waaw maa leen di sant di leen gërëm wala ne gis naa liggéey bu baax a baax a baax hmm. gis naa jàppale bi gis naa leen ci fànn yëpp daal maa leen di te wax ne tey la. ok seen yéen rek c'est le 77 573 09 29. joignable à tout moment. allah sama rek après la bi ñëw rek. à pour des chances à quatre waaw à quatre pour cent deux chance ah? mën naa ne yéene moom c'est ça yéene c'est à cent pour cent moom à cent pour cent kon voilà yéene moom c'est à cent pour waaw mën naa ah, ah, nañ fi nag ay yeneen ouverture yoo xamante ne bergerie bi mu ngi koy def muy ay xaru tabaski te yooyu dafa am solo kon yooyu vraiment ay mbir la yoo xamante ne aussi tamit bu koy nit di def rek dañ ko ciy féliciter macha allah waaw yooyu yëpp ay ouverture am macha allah dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla suñu boroom gën ko taxaw gën koo sàmm yaakaar nañ ne moom incha allah vision bi moom am. ah yal na yàlla barkeel rek loolu lañ koy. jaajëf merci sant sama gars nekk ci ginnaaw. jaajëf waay ah vraiment félicitation. merci liggéey bi jaar na yoon toppatoo bi baax na. jaajëf vraiment félicitation.